daje woon pour euh, def li nga xamante ne bii mooy réunion CLD préparatoire euh, grand magal de Touba comme ni ngeen ko xamee waxtu màggal gi daanaka jot na te réunion CLD bi mooy réunion bi nga xamante ne bii mooy réunion bi jiitu ginnaaw moom dina am CDD bu préfet di jiite dina am CRD bu gouverneur bi jiite. waaye ministre bi si wàllu boppam ministre de dina am réunion bu mu jiite balaa ñoo def réunion d' fii ci Touba. donc euh, ñu jàppoon nag waxtu woote bi moom jot na daanaka ndax di des ci màggal bi daanaka matul ñetti weer ñu woote woon fii ànd ak comité d' organisation bi nga xamante ne bii ci présidence su Serigne Bass donc sëñ Ousmane Mbacke Gaynde Fatma nekk coordonnateur bi. daje fi ak euh, service étatique yi ñu sottante ay xalaat ci li nga xamante ne bi état war na ko jàpp comme ni mu ko daan defee pour que organisation màggal Touba édition 2021 nekk organisation bu mucc ay loolu lañ ci doon waxtaanee ñu xam le ne màggal gi ren aussi dafa nekk ci contexte boo xamante ni bi contexte bu particulier la waaye bu ñu xam la aussi ndax euh, daanaka ci contexte bu mel nii la defee woon màggalu euh, deux mille vingt donc nag koo defaat ci deux mille vingt bi muy contexte Covid donc euh, nekk contexte aussi hivernage moo tax comme ni mu ko doonee woon daaw donc li nga xamante ni bii mooy wér-gu-yaram bi. dafay occupé waat même place bi mu occupé woon que daaw ndax jamono ji ñu nga xamante ne bi ñu ngi woote CLD bi daanaka Sénégal mi ngi ci troisième vague kon nag matukaay yi nga xamante ne bi jëloon nañu ko daaw donc dañu koy jëlaat ba mu mat sëkk kon nag loolu moo tax ñu daje woon fii euh, on a passé en revue service maanaam domaine yëpp ginnaaw domaine santé bi waxtaan nañu ci lépp loo xamante ni bi ci wàllu sécurité la waxtaan nañu tam aussi ci lépp loo xamante ni bi ci wàllu ndox la ndox nga xamante ne bi lu soxal euh, Touba la ren nag ñuy wax ne am na ay jéego yoo xamante ni bi daanaka bi nu génnee màggal bi ba fii ñuy wax ak yéen ci la nekkoon donc di am yaakaar rek jafe-jafe yi nga xamante ne bi amoon nañ ko daaw dina xaw a wàññeeku waaye xam nañu itam ne màggal gi li muy indi ci mbooloo ndax jàpp nañ ne moom mooy deuxième événement religieux bu gën a mag après aj bi xam nañu ne faw mu am ay jafe-jafe ndox mënul ñàkk waaye suñu taxawaay mooy wàññi ba ni ko askan bi doon yëgee fii mu gën a wàññeeku am nañ ci yaakaar bu baax waxtaan nañu ci wàllu assainissement ak énergie lépp loo xamante ni bi tam ci wàllu jënd ak njaay bi la wàllu xale yi wàllu matt mi wàllu élevage nga xamante ne bi jàpp nañ ne moom tam domaine bu am solo la ndax màggal gi kat ak ay bernde ñoo ànd wax na fi sanq lim bi lim bi mooy wane ne màggalu Touba wax dëgg fa yàlla comme ni ma ko waxee woon ca njëlbeen waxuma la sax dimension religieuse bi waaye dafay impacter positivement ci économie Sénégal donc jàpp na na ne bépp activité boo xamante ni bi nit mi ngi ciy yëngu fii Sénégal bu màggal gi jotee li nga ciy yëgee ca bopp bokkut ak bu màggal ñëwul